dañu koy bàyyi Tiwaawoon waaye lépp lu ñu moomoon nangu nañ ko ci loxo Iran. Iran yoratul dara. dara la yorut. kii dina wax El Hadj lu doy ni di yor dara yi El Hadj ba tey dara yoratul dara mais nag Tiwaawoon ñëpp fa dëkk El Hadj dafa ñëw <laughs> dafa ñëw euh, immigré si fii dëkkul euh, gaaya la dëkk. Iran ndaw bu ko neexee mu dëkk Tiwaawoon mais yoratul dara. te dama bëgg journaliste yi di topp yëf yi di ko di ko leeral ndax nee na man daara ji kenn mënu ma fa jëlee ah kañ ña ña nga ne nenuñu laa ñoom ñoom moom daara ji iraay dara la yorut dara la yorut te dootul yor dara yow xam nga xam nga xam nga sëriñ Babacar Si ku ko bàkk danga kaa xam nee na boo ma yendoo ci kër gi rek ma yendoog yow ca naaj ba rek yóbbu la ca naaj ba ngay dukki dukki rek Iran ñëppay laaj lu ko dal fa mu nekk la ne naa la fa mu nekk la télé ba mu nekk la. parce que def na sorti dëggal boobu wax. loolu moom dama dama ree ni ko yow la concerné xam nga man Iran non sens yi muy wax intéressé wu ma xam nga lan moo gën a naqari ci àddina benn joxul jigéen ñi cër tam mën ngaa rafetal ay cëru jigéen ba des ni mu ko doon waxee. rafetul dafa am yoo xam ne bu fekkee dañ ne kilifa nga dafa am noo war a waxee ak peuple bi